auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmaani irrahimi allahuma salli ala sayidina mohammadin alfaatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaxa naasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa mixdaarihi alazim mbokk juliti assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax te leen jéggalu di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm ji sax dàkk barkeb alxuraanul karim tey sàkkuwaat ci yéen ñaan bu baax a baax di wax ni ngeen wéy di abonné tey partage vidéo yi te di ko sem comme nin ko baaxoo def nag saa su nekk tey ñu indi leen jat gu am solo ci wàllu biir buy mitti mu doon jat gu ci kéemaan na lool ci biir bi métti képp koo xam da ngaa amee biir bi mitti laataa loolu nin leen ko waxee woon rek ñi nga xam dañoo soxla garabu sàcc yi garabu sàcc bu wér wala mu soxla sunu jaaro bayre yi nga xam ni jaara bi ci bayre lay dox ak wërsëg ak kaaraange mu doon ci boo xam ne nag moom spécial la incha allahu rabbi la ma foo ko ma jokk xam ci kàttanu suñu borom ñi bëgg ndombare sal gi moom itam incha mi ngi fi waaye mi nga xam ne dangaa bëgg ñu jàngal jat gi leen doon wax mooy ñaan gi leen doon wax bokk ñaan gi nga xam ne bii bu ko nit ki waxee génn këram nga xam ne yaa ngi war a xëy boo taxee sa buntu kër nga wax ko insha allahu rabbi moom lii di borom garaat policier takk der du waañ ko mën a doon doole jàng moom loolu nag baax na ci ku nekk na nag ñi nekk bitim réew moom ba kera ngay ñibbisi doo degg ñi di doon ko jàpp dan doon ko ramas déedéet du am mukk waaye nag na doxe farata daal di ñëw képp ko xam moom bëgg na ko bu nu wooyee des na ko jàngal ci quinze mille francs bu joxee quinze mille jàngal ko ba man ko ndax lépp alxuraan la lépp alxuraan la mu doon nag ñaan gu am solo ñaan gu am solo am solo goo xam ni moom ku ko def incha allahu rabbi ci kàttanu sunu boroom moom bu dee da ngay génn sa kër rek ba ka ngay ñibbi moom kenn du la jàpp kenn du la teg loxo bu dee oto nga dugg wax ko bu def sëfoor la kenn du ko arrêté incha allahu rabbi moom du la yàggal fenn ba ja toppit tam yéen ñi nga xam da ngeen di génne wuti am na jat goo xam ne ku ko bëgg mën na koo jàngal ci 5000 francs moom it 5000 francs jat goo xam ne foqet la kaaraange la moom bu dee da ngay xëy marché wala moo foo mën a xëy nga dafa nekk ak say moroom ngeen di liggéeyandoo ngeen dend boo xëyee nga wax ko bu ubbi sa place bala ngaa def dara nga wax jat googu wallaahi yow de xamma kan waaye lu bis bi naqari naqari naqari da nga mos moom. lu bés bi naqari naqari da nga mus te li ci gën yee mooy kenn du man ci yow dara dara dara dara diiru bés boobu kenn du man ci yow dara te lu jamono naqari naqareem da nga mus moom incha allahu rabbi képp moom ku ko bëgg rek moom 5000 francs la la koy jàngalee incha allah yéen ñi topp ci chaîne bi ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal sax ji sax dàkk barkab alquran tey nag ñi indil leen loo xam ne jatug biir bi métti la ku sa biir di métti nga bëgg mu saafaraw na nga ma déglu bu baax comme ni ko gisee ci écran bi incha allah ci dem si li ñu tax a jóg mooy jat googu moom nag juróom-ñaari yoon nga koy wax bu nit ki bu dikkee ñu la saa biir day mitti na wax juróom-ñaari yoon nga ëf ko ci ndox jox ko mu naan ko incha allahu rabbi suñu borom ci yërmandeem ak kàttanam ak ak i sekkereem mu saafaral ko ko jooni jooni incha allah loolu mooy lan mbokk yi daga naan bismillahi rahmaani rahimi. ginnaaw boo musuloo saytaane mbir nag boo koy def nga jiital istixfaar baax na par exemple bala nga koo def nanga wax auzu billahi min asheytaani rajim teg ca bismillahi arrahmani irrahim teg ca astaxfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa alxayu alqayumu atubu ilayhi tawbatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi wala nafan wala mawtan wala xayaatan wala nusuran wala nga ne astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayhi wala nga ne astaghfirullah al azim boo ci def baax na ci ñetti istixfaar yi nga door a wax nag salaatu ala nabi boo man bu dee salaatul fatihi baax na bu dee sallallahu ala muhammad baax na nga daal di wax tiisi tiisi allah suufi suufi fin dog fin dog suyli muyli tu kundi ta kundi naakifu saakifu juróom-ñaari yoon nga koy wax nga defile ko ci ndox jox ko mu naan biir ba dana sedd incha allahu rabbi yal na ko suñu borom barkeel dafa leen ci lokaayu seen jort ci barkeb alxuraanu karim barke sayyidina Muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñun ak yéen ba ilaa yawmil qiyaamatil akbar yal na suñu borom guddal seen i fan te wéral seen cër barkeb alxuraanul karim jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.